asalaamaaleykum mbokk yi tey jii di talaata ñaar fukki fan ci weeru koor di guddi ñaar fukkeel ga ak benn sëriñ Soñ bi wax na ci xorotul xay ni guddi ñaar fukkeel ga ak benn ku ca julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk gannaaw faatiha nga jàng xul wallaahu ñaar fukki yoon bokk na ci ngëneel naafile googu mel na ni ku moomoon àdduna ak li ci biiram dundale ko ci yoonu yàlla mel na ni it ku jàng tawreet injil zabur ak furxaan te buy génn àdduna dana mel ni